barakat ah gëna bu ñu sante yalla suñu borom jëm ci muhammad kon sëriñ tuba al hadi abdou aziz li nga xamni mo ci dajale mbolo ni tay modi dafa am la jo xamni ñun ñëpp dañu non buñu demee tay ci conférence bi danañ ko laaj alaaji abdou laaj boobu nag laaj la boo xam ne bii <laughs> lu doy la te xaw naa reetaan lu tuuti moo di na ñu baal ak nag ndax <laughs> dañ ko waxtaane woon ci yoon moo di dañoo bëgg daal nga wax nu eh, lu la tax a jébbalu ndax dañu dégg ñun sax wala dañu waa dégg nañu yow Alaaji Abdou Aziz mbay ñu ni yow ab tijaan nga woon ñu laaj nag léegi lan moo la eh, dugal ci yoon murit ak loo ci gis daal ak xanaa daal a nga wax nu daal ni nga def ba jébbalu daal bismillah Alaaji kaddu gaa ngoo alhamdulillah ها oh. doon tijaan da jëkkee ñu ko. maanaam xëy na doo ko mujjee it nag. ah doon tijaan. waaw daa yàgg may murit jëkkee ñu ma ko. ñoo fa def ci tijaan it am na loo xam ne bis bi ca seen bët tegee ñu bàyyi tijaan ba. Hmm. ndax kenn ku ne di wutul lu ko jariñ boog it wut lu ko musal hmm? te it ji jamono ku andi la Sëriñ Tuuba muccoo gën la soobee sax ni ku andi la Sëriñ Tuuba amoo xam-xam Sëriñ Tuubaa daa wax ne koo dégg feneen ne ku wut waaye gisagul yoon sax nekk ku ay yoon ku ci yoon ay sotte ku ci ay jëm si ci man ndax jamono du waaye du am ñaar ji jamono nag Sëriñ Tuubaa la fi yàlla xabiir ak xadra nag dafa bokkul yàlla ba mu ne inna laa ala kulli shay'in qadir dafa bëgg laay jooju boo ko gëmee nga xam ne Cheikh Tidiane mu ngi doon dégg daaw ak bu yàgg bu yàgg ba tey ca saasa fu ne da nga am yàqin bu la wóor yow ni la ñu ca yàlla mën na ko def ci sa doom bi bopp balaa jant su dëgg daal moom ngay tàmbalee xañtoo lii ne fi Sëriñ Tuubaa te it eh, du mbëkki ñaan dong ak ndof ak ndof ci la bàyyi fi téere yi Sëriñ Tuubaa yi di seet yeneeni téere koo fi dégg tey ci ñuy tëltëli de di leen dégg ci rajo beeg loolu beneen beneen wëyu arab bu nekk lu ñu fi waxee xam nañu ko bu dee ci yooyu wala ci wesar waaye lii Sëriñ Tuubaa wax nanguwuñu ko wér waaw loolu damaa doon ñu ndof la ndax ñoom arab boobee du ñu weesu mukk diw la wala bu baree ba bari ñu ne nee ñu diwee ko jur kii la nga xam ne moom yow bokk wala mu bokk ak yow réew wala mu bokkoon fi jamono teg sa bàyyi yër ci téere yi ndax boo dee boo dee mën a boo dee wutuk mën a jàng téere yi dalay yee su fekkee xam-xam ngay wutit xam-xam bi ngay seet bépp ngi ci téere yi Sëriñ nga wàcc ko fi te sëriñ bi daa wax ne koo séen ku ne lu ko musal lay wut law xalla ma naa suma xanaa la badaro ila talabihi walakin ma ja'alahu atlibu khayri ha huna ma la yaktub wala yantiq bal yahrif su nit ñi xamoon fi man ñun ñëpp danañu gaaw ci wut si ko liñ réere nag li ne fi man moo tax ñu ngi wuti leneen waaye am fi man loo xam ne mënees koo bind mënees koo wax bal bayit yi xam ci def koy xam ci jamonoom nga jiyoog moom defatee lu soof yàlla ni xanaa ku ku ku rëyul yonent ñetti bàkkaar ñooyam dajeeg borom jamono weddi ko ak ak yonent wala bi yonent rey la. waaw yonent moom ku ne xam na kamu feet ba di ko rey waaw waaw mhm. dégg ah te itam benn borom jamono ginnaaw noonu may sunuy bët hmm? ngir mbooloo mi ne ci noonu ku ci romb téeméeri at ci dund dootoo mën a nettali lu ñu xam hmm? kon borom jamono yu fi daa am yëpp dégg la ñu ci am ci dégg di dégg ba sa nopp fees nga denc nga denc ba am loo ci fàttewul loolu kon moo fi ne te loolu kenn ku nekk def na ko ci borom jamono yi ci ne waaye bii ñu am ci sëriñ bii ñu gis dégg ci Sëriñ Tuubaa gis ko ci ñu gis ko dégg ci kenn hmm? gis ji yàlla tax li mu ci def kenn mu fi koo def hmm? Euh, euh, xam-xam bi ci liggéey ci téere kenn mësu koo def sàkk fu dara newul mu def fa ba def fa lu toll nii sëriñ Tuubaa doo ko jëkke yoon wu amagul téeméeri at seen jumaa noppi te bëggul ñaari milliards te mu fi fu la leetaram fenn waaye nag ñun réew moom tijaan dafay yàgg ànd ak saytaane xaw ma ni ñoom lu ñu doon min ngeen ñuy wax ndax ñoom daf di suñu masaa toll tubaabu français ñuy wéttali konteeg ñoom ñu tubaab bee leen daan dara jaal ah ñoom it ñu nekkal tubaab bi ba bi ñu ñëwee fii alaaji Malik ne fii ku jàng école ba war a nekk fonctionnaire tubaab sa tubaab dalay wax looy doon boo bëggee ni xaadir wala lii muy la noo nekkal tijaan te booba bëgg nañu tubaab bëgg goo xam ne bu leen waxee loolu da di yokk yéene ñu dee ni màgg gu tijaan loolu tubaab yokk na leen cee nax dégg nga ba tax na fonctionnaire yu bari ay tijaan la loolu yi dem na ba ci tubaab yooyu yóbbu nañu tijaan gi ci réew mi soo xam ne yaari yi seenu indépendant eggagul ci lijjanti ko hmm? ndax grand mosquée fu ñuy wax ni fa la ne fu ne eh, Ndakaaru hmm? boobee grand de grand bu Tuubaa ndax bu Tuubaa ko fi jëkk bu Tuubaa ko man bu Tuubaa ko ëpp bu Tuubaa ko gën hmm? kon nag bu ñu bëggee nekk grand mosquée dañoo yooyu ndigalal tubaab bu jëkk ba te ka jiite moom la ñuy grand imam te grand imam moomee de mutul grand ndongo fii fi Tuubaa te moom la ñuy moom la ñuy wax grand grand imam fa Sénégal kon Tijaan kon euh, tubaab yàgg na leen a sànq dégg nga tey gaa nga dégg ci ci rajo bi ñu naa rajo bi doo ci dégg mukk kenn ku kenn di murit tey xanaa benn raw murit yi tax ñu ne fa tey li murit yi jàng ak li Sëriñ Tuubaa bind ku bokk bar loolu ba ni baaxul naa jàngi lu baax leneen la nga jàng ba defe ni dara la loolaa baaxul نحن لا آخرت خير لكننا لا نريد في جوج مك تيد كل يوم هو في سهل نير ما لين خدير أقدر بكل إن لا على كل شيء خدير بل يبد بلا آه، آه، بلا باخو فيس تي جان غفاد بو جيل لا كي دي غوندا فيس سي نوب بموب دا لا تي خمالي نغي لا يالا ديف سي شيخ تي جان من نكو ديف سي فدوم بلا جنت سو سوكو ديفي كون دا لا فيتي باخو فيرن توبا ني نغي دكل با خمنا مو ديمي xadra nag kooku ab dogal la ñuy wax ni Sëriñ Tuubaa génnul ci alxuraan alxuraan boo ko feetee lépp wax la ju ànd ak ndigal wax ju rafet tey ndigal nag sooy def di jariñu waaye boo boo boo déggee te defoo doo jariñu dégg nga jenn wax rek nag moo ci tax wax yee jóg ndax faratey àdduna ak Makka hmm? ci ci sariha Muhammad faratay eh, at weeru koor faratay bés julli juróom waaye faratay àllaaxira kat mawtu bi liimaan diwaali gëm asbuna laahu ko jaamoon yàlla junni at te diwaali ko gëm moog bañ ko tàmbalee yam kon àllaaxira diwaali gëm rek fa solo لولا ورم يالله وخني له ليس البر أنت ولو وجوهكم فدخ يالله ملين ليس البر أنت ولو وجوهكم قبل المسرح والمقربي بدون أن تكت ولكن أمركم دو وخني لين دف درباكت كل وخنا نباحنا سخواه دلين تبغي يندل لنين لكوكنا mu noon la loolu ngay def dug topp di bàkk penku yeeg soow yi na maa taw loo fa sama ci laay ngir soo fee sa màkk ñii dañuy julli jublu fii ñii julli jublu fii ñii julli jublu fii ngir dàkk bayti laay looloo waral am taw la wu jooxu comme xebalal masriqi wal maqribi lépp xiblu bayti laay rek la ñuy seet hmm. walakin al birra ana lu dik topp man amana billah mooy ki gëm yàlla ka doon def loolee gëm na yàlla boo gëmee yàlla wal malaayikati ak malaakaam ndax bu doon benn buura malaakaay soldaaram an tuumu billahi wal malaayikati wa kutubihi ak téeréem yi li nga fekkewul te muy dëgg téere bee la koy wax wa rusulihi ak yonentam yi mu daa déeyool ñooñu ñëw di wax ak ñoom te ñooñu duñu fi jóg mukk wa kutubi wursi wal yawmil aaxiri ak benn bés bi nga xam ni moo tax ngay rafetal bés yi ñu malik yawmi diin bés ba xam ni loo ma sa rafetal fa yàlla dan ko danga ko ko won ko ko bu ko bëggee fay la nga yóbbu prix ba waaye kat su ko bañee nga perte ngir benn bés boobu moom dana fay jënd ca booba marché te it beneen bés amul bu beneen bés amoon it beneen kon ku mu bañ sa marchandise musiba dal dégg mooy wal yow mi laaxiri bésam bu mujj boobee muy wax malik yow diin te borom bi rek a fay borom. Hmm. su loolu matee. wa qadri yi ak dogalam ba. xëyri wa soo ko waxee nag doomi soxna rek su gaawtoo da lay daal di wax waaw ak dogalam ba rek si bu baax ak bu neex ba ak bu naqari bi kooku nag leerul. wax waxin wi leerul su waxin wi leeree Sëriñ Tuubaa mi ngay seet di ko gis. kooku rek la nit su waxin wi da nga ko gis wa qadrihi wa waaw ak dogalam ba Sénégal ñoo moom constitution bi constitution bi li nga xam ne li ñu bëgg lépp ci la ne li ñu bañ lépp ci la ne ñun suñu yoon ñu bëgg ñu yore leen ni Senghor moo koy wattu mooy chef chef Sénégal deug dégg nga waaye nag nañu ko ca loli yi lan do do décret hein bu deug Senghor su ko nexé jël décret bu suba te décret ba ñuul ci constitution hein te bu boobaa kenn ku dib Sénégalais ko sañ a décret ba amul te jëm Senghor am décret gën ci bind Senghor lolu tax yalla ni la wax qadrihi ak décret ba xeyri ba di ñu wa ak ba di way décret bobé nak da jot mu génn ci serigne Touba ba tax na kon loolu ma def daa koo waaye duma ko mujjee ña nekk ca tijaan ya dañuy xoolatul waaye bu ñu xoolan ba tey gis lu leen fa génne ndax koo ci ni ca dëgg-dëgg lii nga yor enamo ak lu mu doon ak lu ko sos mooy la seex nga ni ko ena seex ci déggoon naa ko dong la yem ak yow waxtaanam mu rëy waaye du génn mukk ab jukki teg ci loxoom naa la lii seex dégg lu ab benn téere teg ci loxoom naa la lii seex te ba te seex ak léegi yëpp na ñaari téeméeri at te te bindu loon basi te société ab société dafa waraan estati soxla ak leer maanaam maanaam ndax eh, maanaam seex ci boppam. moo bindul dara moom nga nu wax wala ni nga ko waxee daal dégguñu ko. danoo bëgg daal nga jox ñu leeral ci kaw dafa bindul wala dafa bindul ci moom dara wala moom ci boppam dafa bindul tee leeral gi lay jëli moo a tax dellu ginnaaw noonu. dama la ni ab société day am statut ab état day am constitution dégg nga ay yoon wu ne dafa am téere catholique sax am na bii yàlla it nee na xul xaatoo burhaanakum in kuntum saadiqiina indi leen seeni lay ngeen bëgg ngeen am dëgg dégg nga seex nag defarulub téere yoonam bi aw yoon nag boo ko amee bu xësee weesu téeméeri at te amul téere boo bo yaay neexal ak a dab daax waaye xam nga ne tas na ndax réunion nag ka wiisi ka daa ñu ñu daa ñu daa wiisi bu ñu xam nga ne réunion ba tas na ngir dunduñu woon dara ba fi mboolem ñële fa nekk ñëpp koo ci ne enamo duñ la ci tegal baaraam mukk ni la lii la ci rek la ñu ne dégg nga ndax ah, <coughs> maani sarti tijaan yu bare ngi ci waaye nag Aliou Araxsin Baradiya liggéey Talu yar asil baradi talu bele ci Cheikh Tidiane te be bu defare tere ci serignam tere bari lepp adar la lu reuy reuy reuy reuy dis ko japp su ko mu bind ni sama serigne gën yalla du ci am bakkar waye doonul deug go xamni dis ci def deug go xamni dess na ci man a kenn maanaam diw matu ko kon be serignam ci la deug lool tere téere ñuy wax Tiijaan ibnu Baaba ko liggéey saani mhm. ala raqabati kulli wali min ladi adama ila nafsi fi sóor sama ñaan dëgg yi tee teg naa ko ci dox mboolem góor ñi ñu tamit ñu walee bufta ñu wetul mu téere ba ko wax Tiijaan ibnu Baaba ko liggéey waaye gisuñu kan wax bind maa yéex Cheikh Omar a ko liggéey Faatiyatu Tulaab alaaji Maalik a ko liggéey seex nag dara dara dara dara dara dara lu dul mañ moo lawraat mañ moo lawraat daal lii daal wër da ko waxtu sàngam ci dog sàngam nangam lay jëriñ loolu daal seex liggéey na ko téere muy mañ moo lawraat ginnaaw loolu salaat faati mi ñuy soowit seex moomu ko wàcciwu ko tijaan moomu ko wàcciwu ko fi lañu ko fekk salaatul faatee moom ndax moom ci mamadul kurdi yi la ko dégg te Mamadul Kurdi ci Mamadu Xasaali yu la ko dégg te Mamadu Xasaali yu moo ne Mamadu Ababacar ay sëriñam kookee Sidna Ababacar ko jur Sidna Aliyu ko ko yar moo moo jëkk woote xutbaaniya <laughs> ah da ngay xam ne rek salaat faatiha bu fekkoon a ko wàcce kon boo demee tarjumaani moo ay ji doo ko fa fekk Sëriñ Tuuba amul lu mu lu mu ñàkk le lu mu néew le ba di ko abbu jëm dara lu mu néew le ci njëfandikaay li banaa bu jëm boo ci noppee alma amu ko amu ko amu ko ah? kon xam nga ni am moom ko ah noonu la mbir mi demee léegi nag nga nuur ca loola rek yàlla xewal lii fa ginnaaw ngay wax ni lii du yàgg de naan yéen murit boob bu ñu tàll bu dee guddi foo toll seen jéenéer ba waaye boo liggéey doo gis doo gis xal doo gis kër gi loolu la ñu wax waaw waaye nag ren jii la am téeméeri at param ji la njëbbal Jóob kon mel na ni bii booba ngi bëgg a amee xal mm-hmm. ah, waaw waaw mm-hmm. <laughs> ah. dégg nga kon nag lay fulla moo lu baax seet ko araamul mm-hmm. soo yoree sa lu baax xam am ko ñaan ko ba am ko denc jëfe ko ba xam ko denc ko fu dootul yàqu nëbbal te dem nag yëri leneen lee ñu baax na yër ko bañ koo yër sanab sëriñ defu ko sanab xarit defu ko defuma ko da nga koy wér wér goo xam ne yàllaa tax soo ca gisee dëgg gu la jaral topp nga topp ko man day ci noonu laa def ba nga xamante ni doon naa tijaan it bi ma màggee ku fi ma sa woote dara téerub téere dem naa fa wér ca téere ba déerub la ma xam a kas néew di ko def ba dugg ci yoonu murit yoonu murit nag tàmbali gi li ma ci tax a yàgg bëggoon na mën a werantee gune murid yi rek looloo tax lu ma ci jàng ba xam ko seeti leneen lu ko gën a luxu ci laaj ngir bëgg bis bu ma dajee murid yi nangam waaw di ko def di ko def ba yem ci xaatimatul munaajaati bil xatti Sëriñ Tuubaa dafa wax ni lii laa mujje déyoog yàlla ci mbind waaw loo xam ne lii day déyoog yàlla di ko bindaat ne loolu lii laa laa ko mujje def xaatimatul mun naa jaati kenn tiimu ko nuyoo sëriñ bi say la xaatimatul mun naa jaati yenduwul àddina ñu di ko seet janloog sëriñ bi mu toog xaatimatul mun naa jaati bi ñu koy laata gis ka ñuy sëriñ Touba mënatuñu koo gis kon mel na ni la mu wax ca téere boobee ba mu ko cay wax woote taxul te bind li tax yàlla fonk ku ko def ah? li tax seytaane ragal koo def it di lu waay bind ci teeyu bakkanam yowmal xiyaam li yàlla bind dana teew nga teew ñu yàlla bind xamanoo la ni la say waajur xame nga nga nettali la nga bindoon mm-hmm. dégg nga kon la mu bind ci xaatimatul munaajaati ba noppi xëy dem yoonam te nar koo nettali ëllëg wax dëgg yàlla waxtu woowee du ma murit waaye lii mën a guma ko weddi ah, déedéet waaye xam naa ni kii moom woote taxatul ngir bu dee ay dongo am na ko ba noppi ah bu dee nit ñi ko ñii fi na ba naratuñu ko fee fekk tey li li ñu ci bind dana ko jàngaat ëllëg mu def ko nag ni mu daa baaxoo di binde ndax ne dama sama mbind yépp damay natt ci alxuraan di sotti ci rasulullahi damay natt ci alxuraan di sotti ci rasulullahi looloo waral wa xalamaka maalam tàkkun tëxlam laay ja sax jeexul ci la waxe wax boobu téere boobee la sëriñ Tuubaa mën a xam xamle ci boppam ci lu nit mën a xam xam na ko ca wax na wax na ko ca ndax wax na ni moom kenn mënu koo xam ñu yàlla yebaloon ñu dëkk suuf hmm? te ñoom rek a fii dëkk ku ko xam bokkagul ca ñooña ñii nit ak jinne te wenn xeet dikkagul weneen xeet dikkagul waaw sëriñ Touba nag ñii nit ak jinne ku ko ci xam newu ci waaw kon nag la nga xam ne balal na ko tuuti ci mbiram muy lu ñu ko mën a xame ma nga ca téere boobee ndax wax na ni dàkketal nañu ma ci yàlla yeenti yoon habdan lillahi wa habiban lahu wa xalilan lahu wa jaaran lahu zairan wa batinan wa xadiman li rasulihi man de habdan lillahi jaam laa ci yàlla wa habiban lahoo soppe laa ci yàlla wa xalilan lahoo xarit laa ci yàlla wa jaaran lahoo dëkk na maag yàlla it saayiran wa baatinan lu feeñ ak lu nëbb wa xaddiman li rasulihi mu soog ni kaay liggéeyee ma loolee rasul laay diggee woon te te waxtu wa jot na te jotu ko woon a def loolee xaadimu rasul ji waaw waaw loolee sëriñ Tuubaa nee bu leen defe ni damaa amuloon dara bajaar ci xaadimu rasul ba am ca ngërëm soog caa amee dara mais lii lépp am naa ko yàlla soog ma ni kaay dem defali defali ma la ma diggewoon ak rasulullaay loola moo di téeméeru ñeenteel ba ci ginnaaw junni bi ba rasulullaay di jooy ci surat borom bi daf ko ne lu mu doon mu ni ko samaw xeet laa wax sama ginnaaw borom bi ni ko bu boobaa danaa jël ci sama mbóot def ko ci sa jëmm wàcc ko àddina toppatoo sa xeet wa yët la ko àjjana rasulaay daal di reen ni Aliou bindal loolu faam su mujj la mu ni Aliou lu may Aliou ni ko lu may bind mu ne ko tuubaa li man balaxa mis atu raabihu da alfun am ci kon lu fóoree yu xam ci Sëriñ Tuubaa muy loolu waaye iñaane nu ñu ko koo jiiñ ba Tuubaa ñu di ko firee neneen sax loolee ba mu jotee nag la yàlla wax Serigne Touba Rasulaay ni ko kaay dem defali ko Serigne Touba lii ko tey boole gi waaye fa yàlla anam Rasulaay denc fa la anam Serigne Touba denc. dégg yàlla ñu gërëm a gisee keroog kenn du ci ni sama rom maa tax Serigne Touba nee ba ma yàlla yebal may liggéeyal yi Rasulaay it booba fa ma bàyyi ko ci yàlla subhaana man jaxale nii xillan lahu wabiyu basiru lezi faddal lahu yàlla daf ma ni li ma bind yaa ma ci gën a dégg nga wax be loolaa tax Sëriñ Tuubaa noonu ko anta lesi xababtani ilal wara xataa yasuur nuuniya nat ban wasara anta yow lesi yaay ci nga xam ne xababtani man nga gën a bëgg ilal wara ci mboolem li nga bind xataa yas na ba tax sa bindee fii jort ne nat ban ab yonent laa wasaraa bu di bu ñu war a siyaar yàlla it daf ko ni li ma bind yaa ma ci gënal kee ma wax ni la kaay dem ko nag du caaga na dara dara xam ne jox naa ko ko te te moo tax ma de la ko wax léegi nag kon ni ma koy defe yenu jàpp caa ci gën a wóor kaay li li ma bind yaa ma ci gënal man mi doon bind li ma bind lépp lii ci gën sàpp looloo waral subhaana man tudd naa follu góor bi nga xam ne jaxale nii def na ma xellan ma def xarit lëxoo ñeel ko te it wayu basiru dégale na ma way euh, euh, euh, xellandoo wabi wabi yu basiru wayu basiru dégale na bee ci man lës yi la nga xam ni saddalexoo gënal na ko nee yàlla ñu ne kon li ma bind li yéen ci gënal fabal bëggale naa la ko nee nasab mu ni ma demal nag liggéeyale ko ko daldi looloo tax sëriñ bi wax ni subhaana man jaxale nii xaddiima lil mustafa lësi xawaa taqdiima subhaana man tudd naa selu buur bi nga xam ne jaxale nii def na ma xaddiima muy liggéey lil mustafa ñeel ku ñu tànn ka lësi mooy la nga xam ne xawaa làqoon na ko taqdiima ca jëkk te jotu koon a def bi loolu lépp matee ba bi Serigne Touba di wàcc fi njaareem la mel ni yàlla da ko ne bàkkul te tëri waaw mu daal di wax nag ci way woowee wasalalal xaq min al xaqil mubin lii xaadama baana wa maa lay seebi tey jii kat wasala yegg naa loolu tuddutul rasulaay ci téere bi yëpp am ci kon fu mu ko fu tudd muy foofu te bu dee tudd li wolof di wax gàndeeru la ndax daf ko ni rasulaay yow toogal foofu Eh? ma eh, eh, maa nga ca kala bindu wasala yegg naa lil xaqu ca aji dëggu ja minal xaqi ma tukkee ca aji dëggal ja ma egg naa ca yàlla bàyyi ko ci rasulullah mu biin ci du bir xaadata mu wamat na lii ñeel ma man bamba maa loo xam ne baana feeñ na wanaa ak loo xam ne lay see biin dootu leen ko xam ba yomal xeyam ndax dafa wax ni lii ma yor koo xam ba yomal xeyam xaabat maqaami هل هو باخ الكريم وإنني عبد قديم لا يريم من سما درجة انت أمتنكو يالا بنت واو دال جيتني علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بالكرم وتلق علمني يالا خلنا ما لو خمني كان نكنا قبل الخلق اللي جيت من ما يكنا خمني كان نكنا لي يالا من بامبا بالكرم كتاب وتلقي أكو باي لم ينفذ لم ينفذات جالب النيران أو جالب الحارين والخسران أو من بابا بسيرنا سمعنا نغنا نحن بنا بانيان موي بس موي جنة يا الله ما يخ موما جنل waaye su mun ko yeesit lu gaaw gaaw it na na fekk ma di tiyaan rek waaw ndax booba sëñ bay seen wax fa nabbahu llaahu mawlaana mamaatan tariqatuhu sama xarajo malaamu fa nabbahu llaahu man mbay day maa ngi ñaan yàlla mawlaana kay sama boor mamaata bu ma deewee tariqatuhu ci yoonam yi ndax sama xarajo képp ku génn yoon malaama da nga rëccu booba kookoog ci muy wax rek laa gëm ba tax kon li ma daa ñaan mooy naa ni ñett fani bàmmeel du ma tax a jéggi waaw waaw bi ma gisee nag way woowu sëriñ bi wax xusaati jaalibu niiraani ay jaalibul xaariini wal xusraani boobu moom jàq naa li ma jàq looy la ma topp daa caa gisagul lu tol ba mën céeti bu te te te fii ne xis xis gis booba booba moom mi daana wax suba gëm na muy yal a doone murit. yàlla na ma yàlla rey ca tisbaar ga balaa takkusaan ja ñëw waaw. dégg nga bés bi nag gisee bii sëriñ bi wax ne lam yan hudu jublu mukk saati ci yàlla bu niiraan lépp lépp lu war a dem sawara boo juddee sama sërit boo màggee jëm keneen man luy la du ma topp waaw bi gisee mu wax loolu ma gis koo jàng saraw keneen ki ma topp gisuma mu wax lu ni mel te sës naa wel ba noppi defe naa ne jàpp naa ñun hmm? ndax Sëriñ Tuubaa dafa wax ni ku nar a dem boo hmm, dugg ci sama yoon boo ci juddoo woon it boo màggee jëm jëm jëm feneen lam yanhu nahwiya saqawatan wa ab waman yaxruju min nasli ila xalaasa man lam yanhu du jublu mukk nahwiya ci sama wàll ji mu di ñëri saqawatan kuy dem soowa waman ak koo xam ne yaxruju dafa juddu min nasli ci askanu mbàkke mbàkke yi ila xalaasa man ba kera dunay tukki ku nar a lakk du jébbalu ku nar a lakk du ci juddu te booba nag foofee ma ne woon wax dëgg gisuma fa lool waaw dégg nga sëriñ Tuuba doon wax ni lan yan mu nii darara naari duniyaa waxta sa nii baaxi di xëyri duniyaa du ma jubale sax man loru sa waraw addina waxta sa nii jagleen na ma albaaxi aji des ja di xëyri duniyaa walis tawat yàlla jox na ma ba jox ma lu ma ko laaj sax te nii manu malaka nii maalam yabbihu xam nii waxaajali baqaahu bil mel ni malaka nii moom loo na ma maa la xam ne la yàbbis jaayu ko am ci man xaada dafa womat lii ñeel ma man bamba bi bi ma ne ci ci xéwalam ya baxaw ba mu def loolu it day sir ndege sëriñ Tuubaa bani dama yàlla ne demal dajale nit ñun mu nu wërëñ mu ne ma demal jukkat ñu nar a dem àjjana ñëpp dajale leen ne ma a kon ku dëkk ci dëkk xam nga la fa am hmm? lay jaru ci digg àjjana tamit seen li ba ku ne seen ko ma dem sàq ko wala ma tibb ci nga xuus ak moom ci nit ñi ku ma romb te nga nga daw suuna nga daw topp ci man waaw. waaw mais noonu laa wuteeg nit mais am nañu fii daan waaye borom jamono ñu ñëw fii di xeex naa yàllaa leen xeex lool day rey am ñuy ci ñoom te dara mujj ca ndax dan lee du dëgg ne man nag ba ma ba ma ko defee damaa dem àjjana jëlee sa njëriñ li ñëpp xam wàccal moom àddina mboolem ku dëkk àjjana daw topp ci man nafahan yi naafiha nafan jasada lii xalba kulla faisin fan jasada nafahan yi jëriñ na ma naafiha aji jëriñ ga nafan njëriñ loo xam ne jasada dana oos lii ñeel ma xalba kulla faisin xolub képp ku nar a dem àjjana fan jasada tamit ma góobi moom moom laa dikkaale e ci nit nar a dem àjjana ñëpp nag wëlbati ko topp ma loolu nag ba ma ko gisee te topp ma ko naraguma koo topp am naa xalaat ci sama bopp lool waaw dégg nga sëriñ bi wax ni karaamati kitaabu man rafahani bihi ilal jinaani musnafani xaw xaw naa mel ni lu ma yenn foofu ndax dafa wax ni karaamati kitaabu cedd ngay alxuraan man mooy la nga xam ne rafani yëkkati na ma bii ci daraja yonent bi ilal jinaa ni ba àjjana muxtawaa nii te dima jëriñ ma ne man de lengoor laa dëkk téeméeri naam ak fanweer ak juróom-ñeent am naa ko ci caang ñu ma fëti ci ñoom kon na ginnaaw alxuraan a ko may lool xanaa kon alxuraan moom kon ndeke maa ngi bëgg a wax yoon wi ma bokkoon day kootu fa ma bokkoon kon daal xel dalatul sëñ sëñ bi foofu la yem ak lu ak lu kuy bind mën a li ci des nag kenn ku ñu bind mosu ko ñu nee wax ci boppam daa wax mi ma ni ma xamamaata xat na am nafuufa wali siwaaya saaxahu tansiif mahaa far na mamaata dee xat naa joo xam ne jubloon na nafoofa ci sama bakkan lii ñal na te ni wasuwaa naf si beneen bakkan bu sa nafas bii saaxahu dana ko màng moom dee tansiif sa bakkan booba alxuraan ne ah mu ngi koy kullu nafsin zaa'iqatul mawt كنت بني إلى سوى نفسي إلى سوى نفسي انتهى الموت لها النفوس كل هذه إلى سوى نفسي خنا بنين بكت مدل بي سوى بني بكتر موت لي وإنها بنا نفوس شفابة كلها لك بفوت شفابة لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي لم تنهني بمجبنك الموت تنجيت na nga fanaane dong sam nopp du ko dégg maanaam booba day mom dal du feebar déedéet wax ak rasul tu yëkkati ni xëytu sama kaddu bi bil xay ci ci def fekk gën tan xëy asmané sëñ tuba néna na di ñëw ay àddina waaw ndax da wax yalla niko ko nga na fi nekkal neel ma fee nga fee nga di fi nekkal ma rek fee da ba mu fi ne yalla yalla na nga xam tan la ndax ko ni def teer ngay nekk nekkal ma rek wakun li yëpp dahra wakun mahi wakun lii saa iqan fawqal maraami bikun wakun da ngay nekk loo ñeel ma dahra biirub jamono teer ngay am amal ma wakun te nga nekkit mahi di ànd ak man su ma dugg topp ma waaw wakun li yëpp dahra wakun mahi wakun te nga nekkit saa iqan di màng lii ñeel ma fawqal maraami lu koy la ma doon sàkk bikun ci sa nekk سيرين دنيا موغ موغ يالا نوني كون الى سوى نفس انتهاء الموت نها نفوس كلها بسوت لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء سوت موت الذين كاد دوني بدل من موت نفسي ما نهاني جدل موت الذين ديل غاني خامي كاد دوني بدل ان تشين سين يرم دون سوتكو min nu ci nasseeg dee taw maayaa yëpp naxaa nii yàlla bañ na ci man jaddulun wali jàddi ñu dem te seen yaram di sottiku ba ci rasul lay jóge léegi ñu nga diggante ñu ñu baax ñu baax min mawti nafsi maani haani jadalu mawti la diina ka bi doona badali min mawti nafsi maani haani jadalu maanaam ba ci rasul na jóge léegi ñu fi ñu fi jóge te eh, boo demee ci seen faggu boo waxee ñu dégg boo leen ñaanee ñu may la boo boo jàqee ñu dimbali la ñooñu seen yaram a sotti ko waaye jóge bi seen bi nag ne waxuma googu bu ma ci genn gaar rek bu ko ci genn gaar waaw moom nit nag jëmm la jëg daal ba mu fi ñëwagul fa ba mu fi ñëwagul fa mu ba mu fi jógee foofee la dellu kooku it mooy fa yàlla rek di waaw waaw ijaaru laay waaw ndax nee waaw ndax nee ah, sa sama ab soppeem laa ab jaamam laa bëkk néegam laa mhm. moom kon ma ngaa ak moom foofee waaye yooyu façon yi dem benn ja dalu ko ci kaaba dooni badal min mawtu nafsi maanaha ni jaddal tursi anil mawtu baqaawullaahu abxaaniyallaahu li weccilaah pour seen il mayte yàlla suturaal na ma ci ndee baqaa na ma laahu yàlla bi ma fi yàlla defalee mayit abxaaniya def naa li weccilaah ngir jëm yàlla yàlla bana ma fi ngir boppam ma def fi ngir moom safaaniyal baaxi mamaata sarmadaa wa bi baqaa iya yafuri ahmadaa yàlla bana ma fi ngir boppam ma def fi ngir moom ngir Serigne Touba bii nu ko noppee gis la ëpp doole ba nu koy gis ah daara ju mag joojee ci Ndakaaru muy université Baye Diop nee na ma maa fa jëkk jàng xasaay ca kaw mais ba mujj ab élève ko professeur ñun ñëpp maase nañu mere ma ba bu bu élection ñëwee bu kii expo eh, eh, eh, ñëwee dañuy wax doon dara Baye Diop nee ci Ndakaaru te mooy taalibu suñu gilaat boobu mais foofee ma doon jàng xasida noonu ñu gën a mere mooy dayi la ba léegi muy foofee nga xam ne ku fa tubaab na fa wér da nga faa jaar muy université léegi tey jii ku fa jaar am murit la waa ndax iblis dafa jaaroon soppi soppi jëmm ya ak kàgg ku fa jaar wax waxi tubaab sa lii si tubaab ñu ñuy iblis sëriñ tubaab ne daa daal di xàqatoo ni ñooñu sama ñoñ la mais ba ñëw see fekk surtout li may wax bi ak jëmm ji ne ma soppi xol yi dem ñoo ma fekk xol yi dal loolu waral étudiant yooyu ci benn murit yu jëkk yoon wala leneen Sëriñ Tuubaa ci boppam waaw loolu itam lay sabab sa dëgg-dëgg mooy sëriñ bi def fee ñëw nar fee jëf am lu ñu ko fi sant mu nar koo def am lu ñu ko fi yóbbante mu bëgg koo def soo def li mu naroon a def dina def nag li ñu noonu li ñu ko yëppante woon dana ko def waaye ci biir bi mu koy defe mu ngiy fàggu bis bu naree tàmbali nag li muy defal boppam ah mooy li nga dégg Sëriñ Tuubaa fii lépp xaadimu rasool jee booba lii rasool laay bëggoon ci téeméeri ñeenteel bi moom la ko doon defal loolu yi nag bis boo xamante ne reere nañu cere itam xarit loola jeex na loola jeex na di kat kepp jeex na jeex na xaadimu rasool jeex na sëriñ Tuubaa ràngoo nag xàppug sayidi axiru sama xam ne bis boobee ku nanguwul muy sa sang loo weex weex bul juddooti Cheikh Ibra dana ràngoo bu keroogee darajey imaamu axiru samaan xam ni Baay Faal ak boppam bu sëq ak melawu ñaawam ci kaw e ku mu naqari da nga di jaar yàlla feneen yaa ngi mel ni ku jekki ba bopp waxtu nga sangu sol lu set jàpp yegg ca waxtu eh, ca jàkk ja kàbbar ci bopp waxtu topp ci limaan buy sëgg ngay taxaw buy sujjóot ngay ngay ngay taaya waaw li li fa yàgg yàgg yàgg nga am waaye doo julli ndax dem jàkka ju yëg yi limaan du jëriñ dara waaye nag see mooy fii mu nekk bëgg lislaam te juguwul ak seexi la yàlla loo fi ma sa dégg lislaam amul xamoo li ma la wax lislaam amul déedéet baax gu lislaam wala sànn gu tudd lislaam déedéet gis nga lii ba lay dikkagul kenn tuddewu ko lislaam te boobu hmm? bi ñu dikkee nag ak ni mu ko toppatoo ni mu ko sellale la ko tudde rek lislaam dégg nga su jàllee keneen ku dikk ak na mu jubóog yàlla dégg nga mm. ndax campagne sax bëgg dara fa yàlla ñu àndak ak yow di wut li yàlla soxla dem di ko koj dégg nga rasulullah nag bi ñu loolu yi la yàlla soxla woon na leneen lu ko yàlla sant Sëriñ Tuubaa nee na julli juróom weeru koor dem Màkka baaxoon na lool waaye léegi bañ a gis si mën a ko gën bañ a gis si mën a ko gën léegi aslamtu la yàlla soxla diine yi leen bu ca bu ca aslamtu na si nekkul li baaxu bu ca xisee nekk amatul si waaye aslamtu jawante cosaan yàlla nag ne jot na ci appuyé ko ku ko nungoo laa wax doonoo ci man dara ca kaw ca kawam sax moom rasulullah ndax lu toll ni di yonent ci yàlla seer na hmm? lu toll ni eh, bi ngay yonant ngay ulul at ni wax ak yàlla ñu wëlbatiku wax ak bindee ñoom foofu lañu ñu toll kooku kon ñooy naas ci yàlla jëkk a ci nit ñi hmm? ba mu ko defee yonent yàlla Ibrahima ni ko man day aslamtu lillahi rabbil alamin man daal avant tout naa jébbalu ci yow rek hmm? jébbalu naa ci yow yonent yàlla Ibrahima ko ko yàlla ni tawit loxo ba ne ko kon nag ataxasuka xalilan may jàpp naa la ngay sama xarit kon jébbal foor na njébbal googee nag la yàlla delloo koo xam ne nungu la ni aslamtu bul jéem leneen saful yàlla ku nungu ni aslamtu bul jéem leneen saful yàlla saful yàlla waaw sëriñ bi wax ni foo tolloon kara déet karamati kita ah, ah, àlla ma bi xaw di ilaya albayta la fen bi al marliya kon tontu loolu ñu leen wax ca France ci laaj lu tax Sëriñ Tuubaa demul Makka kookee gis na day day laaj ba xam li mu siin siin ngeen koom déet ngir ñu mu fi ñu mu fi fekk daanañu defe noonu hmm? waaye Sëriñ Tuubaa ñuy xàllame nii xamal na ma di xaw di ci wammatu ilay jëm si ci man البيت ني بيت ما تراسي جلنا مارلي دي گرم في دين الاسلام ان بيت الله الحرام ترفعه هو ملائكه الى توبا وفيه محمد رسول الله مع امين الوحي ويدخل فيه هما مع جميع القدير اي مريدين صادقين الى الجنه التي يريد المتقون فمن صاف اليوم ومن صاف اليسير ولا ولا من اقل وجهي كنت بعدني ما تقولي جلي جلي جلي جلي Eh, eh, eh, jibril yenu na ko hmm? malaaka yenu na ko jibril nekk ci biir ak rasulullah ñu dikk fii ci Tuubaa ma dugg ci ak ñi ma tànn ci nit ñu dem ba ci àjjana ji yàlla xaroo képp ku ko ragal kon lii ma wax ku mu soob na nga gëm ku mu soob na nga wedd màkka googee nit ñi jëm màkka googee moo ñëw fekk ci Sëriñ Tuubaa hmm? moo tax kon bu dem foofee lu tax dégg ngeen ne su leen doyul sëriñ bi nee na maslaa bi yëpp ne tawaafu kullu man alayhi ankara kindal ilaahi wa nari lam yaskara yéen di màkka képp koo xam ni kii def naa weddi lam yaskara kenn du sant ci ajam kindal ilaahi fa yàlla wa nari yonent ma soo ma gëmul dem te xës na xam boo demee ba màkka ñàkk nga sa alal sonal saw yaram di nga gis sa njaboot mën sa waa sa jëf nag yàlla ak rasulullahi mer nañu ci طواف كل من على ينفر من سرين بسنة نويدة ولله حالا ناس أجل بيت من استطيع لي سبيلا مونا تتير بمن نكفيك سرين بني حجو إليه في بيتي صحبة نصبة وصاحب البيت هندي ولا ما هو حجو أجسلين إليه كمان حجو أجسلين إليه كمان في بيتي كسمني جيت bi ndax kaabata yàlla nga kat nu sibat sañ sampal nañu ma ko fii ci Tuuba masaayibul bayti xam nga nag am malaaka e, kawaafi ju bu gudd bu guddi baas waaye nag wasaayibul yàlla ma woon ngi fii fi nag wal xamaa xurima ak lépp lu waroon orom ba jëm loolu ngay laaj de mi Tuuba day nee waxtu wii nga jullee fi man moo gën wala jullee fa fa Makka gën wa nga jullee fa Madina jémmanoo leen a boole ci wenn waxtu ndax fi ñu ko jullee bi dëkk moom daa toll ni Madina gu am Kaaba astafurlah Madina waaw Madina gu am Kaaba wala Makka gu am xabru moo tax mu ne moo tax mu ne waccal bihi daariye kal Madina barakatan wa kahbatal mahsuna du dem waccal na nga def daara yi sama kër jii di Touba kalma kal madina mu mel ni madina barakatan ci barke wa kaxbatal mahsoon ak kaaba ga ñu ñëwal fa màkk boole ko muy Touba te bindoo de kay ñu bu leen dem ñëw mu ni ci xaatimatul laa sàkk بكوني بلمين فيني وبالكتاب ولمين لا ساك بول فيك تبول ورنت في كوني ci sama nek man bamba bilamin may kuy gëm fii fa yàlla wabi kitaabee téeram ba wala ni nag yonantam ba sëriñ Tuubaa nee soo ma gëmul yaa xamul ci yàlla dara yaa xamul ci alxuraan dara xamoo ci rasulullahi dara doonoo ci yàlla dara waaye ñu ñu ñett ku ci doon dara xam nga ci man dara waaw li nga xamante ni Sëriñ Tuuba wax na lool man nangu naa ci euh, euh, gën ñu la mu wax dëgg la waaye xaw ma borom fu mu ne mu dellu ca teg ni malakan yi lamiinu wal amiin kitaabu baaxi malakan yi moom loo na la lamiin ma ñuy wax Muhammadu Lamin wal amiin ak Jibril ma ñuy wax amiinul wax yi ñaar dikk nañu fii si njaareen moom loo ma kitaabu baaxi téeram aji def القران جاني ذكرنا من سواء فيتامين نعم. في الجبل او رسلني الله كتابه المبين وهو ما بانا وما ليس لي من قال او رسلني دون لنما الله يلا كتابه تيرين بان مبين بدي بني خنك وهو ما لاق كدي ما لو خن بانا فين وما اك لو خن ليس لي دوت لين كو خن بيوم الخير آه. ماني نك كي جبريل رسول الله يت القران كو خم فمو te man dem boo ko yotul sa bopp sa dara sa fatul yàlla keroog bésu keroog ak lu ma mos ñaan ak lu ma mos a waat bésu keroog bu ma xamoon ni njaarim la yenn keroog laay doon murit teg nañu ci nag juróom benn weer doona doonatuma dara déedéet gëmatuma ñee gëmaguma ñii <laughs> waaw gëmatuma gëma gëmatuma ñee ngir lii ma gis gëmaguma yi kii dégg ma daal di xam ni nag léegi alxuraan nee na maa nun sax min aayati naw nun naati bi xëyri min aa aw alam taalam ana la ala kulli shay'in qadir loo daa di loo daa topp te muy dëgg ba gisatoo ko demal fa nga doon gisee xalifa xalifa ma nga borom bi ne du ma nasaxal dara ci sama kéemaan yi ndax rek du dama saa wutal lu gën la woon mbaalu na mel mu ñëw fekk ma ñëw yem ci sëriñ Salim maa ngi maa ngi ndax ak ruudees ci nas laa yoomal xayaam sori na te sëriñ Tuubaa dala ni faqad damil himmi ala kulli xamal isa arada an taxoosa bil amal faqad damil himmi da ngay jiital xam ala kulli xamal ci lépp looy jëf isa arab dara jéem bëgg nga anta foofa boo làqee di amali ci say mbébét te Serigne Fallou mii fi ne ma topp ko ba nu romb ñeent fukki daraja ak benn benn bu nekk àtt na jamono ndax Cheikh Ibra Fall nee na wëllërante na ma moom fanweereet soxna bu sa soog a ñëw kër Serigne Touba ba benn bés la la Cheikh Ibra eh, eh, ñëw ca jàngu ba ñu sëñ Abdourahmane seen sëriñ bi bu génnee nee leen ko doomi sëñ bu soobee yële ci aasa ga ca Kaffrine ah, ah, ah, bii dama gént ñu am ko àtte jamono bu sëriñ Tuuba ñëwee bay dem ñu wax ko ko mu toogaat ñaa Cheikh Ibra du bàyyi bu nit ñu ne la muy kun kuni rek ko ko yónnee aase <coughs> jox ko suñu aase moom ak ak ak soxna bu moom sëñ Fallu sëñ Fallu nee na fàttaliku day ko am laa ndax bés boobu ma ñëw àdduna de te woor fàttaliku naa ku fàttaliku koor ga ca suba ga ba fa Seex Buso bi ñëwee Tuubaa boole koog Cerno ne ko dama nuyu ko dama nuyu ko te ñu eh, bunt bi ñu fi buntu buntu gittax bi eh, xar-xari eh, gittax ji te ñeeri jant bi mu ngi ci jaar ba fekk ma fi ñu ma lalal sur rabal bu am rëdd ci laa tëdd sëñ bu soobee jiitu ma amaam cer noo jiitu sëñ bu soobee topp ba mu ma tiimee laaya sàngam la doon jàng ci alxuraan sans fàttali ko yegg na ko sëriñ Falilu nee na ñetti fan yi bàmmeel ku ma fa ku la fa fekkati dalay lor waaw mu ndax sëñ Tuubaa moomee rekk mën a dem te man dong la yebal xam ne ñëpp ñëpp ku ci ne ci yàlla la jóge jaar ci sëriñ ñuy mooy ñi ñuy wax loolu yi waaye kenn ku ci ne ak la la sëriñ bii liggéey loo boo gi wet nag sëñ Fallu ne ma rek ko mën a mais boo amee sa addiya lekkal soo joxe joxal ku la neex booy jébbalu seetal kala doy waaye xoos ci bàmmeel te duggaale ca murit ne keneen keneen du la fa fekk ku dul man dégg nga topp naa ko man maa maa moom ba nu romb ñeen fukki dara ji léegi benn bu nekk atte na jamono ma soog dem jox ko saa bopp ma jébbaloo dana ko ne ci lisaanu jur de te ci yeneen yoon laa juddoo woon kon tóor xëjul ci man danga may def ni gànk ak xëri ak pat bu ma tóor naa xëy meññ rek mu ne na mooy am topp ak bëgg ak muñ ñu ñëpp di xool ku mu woon ku mu woon ñu gis ma ni ko garab gi ma bàyyi koo de xob root xewu ci bàngaa sa ci demee mu ne ma umpulu waaye nit bindoowunu jële kenn ci kanam di ko yóbbu ci ginnaaw ca kanam rek waaye li ma lay xamal koo dégg mu ni tijaan la koo dégg mu ni tijaan la su fekkente ni fan wa gudd na tuuti murit lay doon abadan koo dégg koo déggagul ci murit déggagoo ko fi baax la mu yuuti yëggagu ca koo déggagul ci murit rek déggagoo fi ko tax a ndax ñoom lépp lu baax ñu ngi koy def ngir wut lu baax kon nag bis bu ñu xamee ni fii la lu baax nekk ci la ñuy yendu ci ñu ko def eh, def naa ñu hmm? ko kon nag bii yoon ci la lépp di ci la lépp di mujj dafa wax ni ah, eh, ginnaaw bu ma noppee nekk njaareem dinaa fi nekk ñeenti téeméeri at yoo xam ne lu baax lu ne maa tax mu dikk lu bon lu ne maa yi tee mu dikk xanaa ujaaru laay dox de xaasaa leyli arbaxa mihati sannati bi def fee jàng dinaa dëkk ak yàlla dinaa guddi tey ñeenti téeméeri at di leen dina leen eh, lor di leen ñor du ñàkk boroom waaye du am ñaar di jamono Serigne Touba la Serigne jamono du ñàkk boroom waaye du am ñaar ji jamono Serigne Touba ko ndax yow soo fi rombee Serigne Touba bu la nekk ci leneen bëgg a naatal la nga nekk ba di ko làngalee lii itam looy taxaw looy taxaw looy taxaw nit ka nga àndal lu mu def alors du nee ñu daañu def daañu def fii Sénégal semaine ak semaine